abonné leen ci seen seen YouTube Partout moom leen di jox xibaar yu wér Partout TV abonnez-vous Partout internet yi ànd ak seen chaîne YouTube di Partout TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen dagaan saa su nekk ngeen gën a wéy di abonné di partager ak di aimer suñuy vidéo ngir ñu mën di dab seen bànneex ci lu mel ne xibaar yiñ leen di jox wala seen rubrique bii di jàngatu bés bi tey rubrique bi nga xam ne mooy jàngatu bés bi dañ ci fas ne waxtaan ak yeen li nga xamante ne nii ginnaaw atte bi nga xamante ne nii moo amoon ca Ziguinchor démb te ci ñun xam dogal bi nga xam ne moo fa wàcce ndax ginnaaw bi le boobu dogal wàcce ak yi nga xam ne moo amoon démb ca boobu le tribunal yépp mu ñeel ay xeetu sabotage yi nga xamante ni nii ñii fa teewaloon état bu Sénégal ñoo ngi ko doon fas yéene doon def lépp rek ngir bañoon boobu le procès waaye mu mel ne juge bi di Sabassy fay moom dafa taxaw xamle ne amul benn pression wala benn xoqatal boo xam ne mën naa tegu ci ndoddam ba li nga xam ne moo ñeel boobu lépp dossier du si def liggéeyam démb kon mu mel ne démb dañoo gis loo xamante ne nii ñu bari ci sénégalais yi namoon nañ ko gis wala ñu bari dañ naan gëj nañ ko gis wala dañ naan guléet ci ayu Macky lañuy gis lu mel noonu maanaam ab attekat boo xamante ne nii dafa jël courage taxaw ngir fas yéene atte dëgg te moo ne lii war a doon taxawaayu attekat ci milem réew mooy taxawaay bi nga xam ne kii di Sabassy Faye moom la amoon démb ndax réew buñ demee ba bànqaas bi nga xam ne mooy justice nit ñi dem wóolootuñu ko loolu ba dogal yu fay génnee nit ñi ñaar bi wala ñett bi dañ naan amuñu ci benn yoon mbetteel ndax xam nañ ne li neex nguur loolu la bileb juge wala di àttekat yi ci lañ nekk di dox démb ñu gis lu wute ak li nga xamante ni loolu la boobu lépp àttekat wane ndax naam balaa procès bi doon door sénégalais yi ko ci déggoon mikro danaan ah amuma ci yaakaar fañ daan jaar rek lañuy jaar waaye bi àtte bi dooree ci la ñi nga xam ne ñoo fa teewaloon état bi commencé di paniquer mu mel ne kon ñoom juge bañ fa bëggoon a fekk ak nañ bëggoon mbir yi demee demeewu ko moo tax ñi teel a xam ne fii nii tey duñu fi baaxle kon li nga xamante ne nii moom la juge boobu wane démb fee ca Ziguinchor war na jox exemple bépp magistrat boo xam ne fi mu toll nii yaa ngi ci réew mi ndax niñ koy faral di waxee ci suñuy kàddu ak suñuy jàngat yéen magistrat yi dangeen a yor benn banqaas bu nga xamante ne nii bu am solo la ci réew mi te leen fàtte ne kii di président Macky sàll ba ngeen di jàng fekkewul te ginnaaw bi ngeen jàngee ba am seeni lijaasa ba toog ci bërëbu atekaay yi moom munu leen fa jële li mu mën kay mooy comme li mu def kii juge kii di juge bi di Sabassy Faye ndax ginnaaw bi mu yoree dossier Abdoul mbay bi mu génnee ci gouvernement bi ñi bëggoon mu dogal ci ab dogal boo xamante ni dafay nekk contre Abdoul Mbaye waaye moom xoolul Abdoul Mbaye xoolul ni nguur gi bëgg dafa àtte selon la loi dogal boobu génnoon ci àtte boobu neexul woon ñi di gouvernement bi taxoon ñu jëlee ko fi ci Dakar def ko li nga xam ne moo di affectation punitive maanaam nee nañ dañ koy sanctionné sànni ko ca Koungheul ginnaaw bi mu jugee ci Koungheul ci la nekk ci Ziguinchor kon bu nit ñi demee bay commencé di interpréter que ni wala di gisee ni magistrat yi nga xam ne ñoo féete ci diwaanu ndakaaru li leen fi teg mooy dañoo nangoo amal li nga xam ne mooy càkkutéefu ñi di autorité yi maanaam ñi yor pouvoir exécutif bi moo tax ñi am ay promotion mën na nekk biir Dakar waaye bépp magistrat boo gis ñi sànni ko ci àll bi dafay mel ne kooku d'habitude du faral di nangu seen caaxaan yi nga xam ne moom la état nekke waaye loolu it dafa am loo xam ne moom lañ ci jàngat ndax bu état demee ba wara a sanctionner ab fonctionnaire di ko sànni ci àll bi dëkk yu mel ne Ziguinchor Tamba Matam kon loolu nday avoué que ni kii di état bi moom dafa mel ne dafa lajj ci yooyu la dëkk ndax boo yéenee nit ku lu metti nga jël ko war ko sànni ci dëkk yooyu kon war ngaa xalaat ne dëkk yooyu ña fa nekk kon ñu ngi ci ay conditions yu metti kon mu mel ni nit ñi war nañoo ubbi seeni bët gën a xalaat te xam fi leen politiciens yi féete ndax bu ñu bëggee mettital nit bañ na ko ba dañ koy jël sànni ci seeni dëkk te bu campagne jotee wala ñu soxla leen dañuy ñëw ci yooyule dëkk di leen neexal maanaam xeetu politique googu moo war a jeex fii ci réewum Sénégal te dafa mel ne sax moo ngi commencé jeex ndax nit ñu bari ñoo ngi commencé comprendre li nga xam ne moom la politicien yi dëkkee ak ñi di askan wi ci di leen nax ak di leen sànni ci jamono yu ñu leen soxlawul waaye buñ leen soxlaa di daagu jëm fa ñoom kon magistrat yi war nañoo ubbi seeni gët xool ci juge bi di si Faye ni mu amee courage wax li nga xam ne mooy droit kon muy mel ne ubbi na bunt boo xamante ne nii bépp magistrat boo xam ne am nga yéene teg sa liggéey ci yoon war nga ko mën a teg ci yoon te nga yamale ak yeneen dëkk yi ndax bañ a dem ci dëkk yi warul tax nga war a mën a topp nguur di def ay dogal yoo xamante ne nii yow mi koy jël saa su ne xam nga ne lii du dëgg lii du yoon kon gulet président Ousmane Sonko am ndam loo xamante ni ni jugee na ci justice ci kaw ñi di état bu Sénégal bi nga xam ne ñoo ngi ko dëkkee woon di tooñ ginnaaw élection 2019 yi ba léegi kon mbokk yi laaj bi samp mooy ndax magistrat yi fi mu toll nii dinañ jël seen courage à deux mains ngir fas yéene doxal réew mi te teg ko ci ab dal ndax ñaari réew mu nga xam ne am nay yëngu-yëngu ba am nay tàkk-tàkk dafa mel ne saa su ne loxoy magistrat mi ngi ci biir ci lu jëm ci seen xeetu doxalin kon mbokk yi ñu leen di jaajëfal di leen jox dig daje tey sàkku ngeen gën a wéy di abone ba beneen yoon ak beneen jàngat